rebondissement yi nga xam ne am na ci dossier wu kii di euh, Jérôme Bandiaky ndax am ni ki démb rek teewoon naa leen fi teewoon naa fi ne leen euh, Jérôme ba tey euh, mu ngi foofee ca dikk waaye fu mu toll nii nag li nga xam ne moom la procureur sàkku muy prolonger li nga xam ne mooy ak garde à vue moom Jérôme Bandiaky dina passé li nga xam ne mooy week-end bi foofee ca euh, dikk fi mu toll nii nag benn charge euh, retenir aguñu ko ci kaw euh, Jérôme Bandiaky ñu mën a jàpp ne fi mu toll nii ñii di enquêteurs yi dañ ko téye ngir daal di gën a mën a approfondir li nga xam ne mooy enquête bi ma fàttali ne rek moom ginnaaw bañ ko tegee la loxo moom Jérôme Bandiaky demoon nañ foofe ca Mbour daal di def perquisition ca liñ fa gis nag bokk na ci ay passeport passeport diplomatique waaye tamit euh, bokk na ci li nga xam moy ay attestation euh, de logement de fonction ak ay matériel électroménager yu baré baré ci walum justice la ñuy desandi euh, ba tey cette fois-ci pour parler de la Diop na xam ngeen ne la Diop momit dañu ko wo fofé ci division des investigations criminelles pour dal di koy entendre libération nak tay ci seen xët gu ndëkk di xam le ne moom la Diop dinañ ko entendre ci li nga xam ne mooy ñaari mbir benn bi mooy gestion foofii ci LONASE waaye tamit turam dafa feeñ ci li nga xam ne mooy enquête Jérôme Bandiaky ba tax na moom tey Lat Diop tey ci euh, samedi ci 21 septembre lañ ko convoqué foofu à 11h foofee ca euh, dikk fi mu toll nii sax daanaka euh, njortu nañ audition bi wax naa commencé moom Lat Diop tey mu fas yéene wuy ji ba tey ñu desandi ci Walum justice cette fois-ci ngir d'aldi wah euh, wax ci mbiri Aminata Touré moom nga xam ne turam dafa ñëw ci li nga xam ne mooy euh, dossier wu Jérôme Bandiaki moom Aminata Touré euh, ñu fàttali ne rek euh, avant muy euh, rallier li nga xam ne mooy nouveau régime bi bokk ci coalition Diomaye président moom Aminata Touré membre la woon foofee ca APR nekkoon na fi premier ministre du Sénégal waaye tamit ministre de la justice ba caisse de sécurité environnementale fi mu mujjee nekk yépp mi ngi ko nekk ci euh, sous le régime de Macky Sall té ki nga xamné moy euh, Jérôme Bandiaki dafa bokkoon euh, ci ñi nga xamné ne ñoo doon assurer sécurité ki nga xamné Aminata Touré moy Aminata Touré ba tax na moom Jérôme daal dinay mouyé ki nga xamné moy Aminata Touré fi tollu ni di haut représentant du président de la République ci non lañuy ñuy duggé ci actualité people bi xool li nga xamné mo gëna def buzz ci réseaux sociaux yi dooree ko ak oustaz Modou Fall ay Diop Fall fi mu toll nii mbir yam ngi commencé déraper ndax ginnaaw oustaz Modou Fall ba mu génnee yàq keteme ah, ki nga xam ne mooy ay Diop Fall ba traité ko de de dangin ay Diop Fall moom it daal dinay tontu toog na ci ah, plateau am daal di tont ki nga xam ne mooy oustaz Modou Fall lim ko xamal mooy Euh, il elle faisait allusion à Bouba et Youssou Ndour les personnes que je vénère sont revenues à plusieurs reprises pour me demander de revenir à la TFM tu es le dernier à travailler pour Youssou Ndour et Bouba. et crois-moi tu ne représentes rien pour eux le jour où ils n'auront plus besoin de toi tu verras les conséquences Lol, Studio sa xol bi di bon sa yo yewo mom nak tontu nako ko ko ñi ngay jaamu man la ñuy wër ñëwaatoon nañ ci sama ginaaw euh, di ma dabu si waat waaye maa buggul li wax moy mom euh, gis kuko euh, daldi fasé dina ko baax sawti loolu daldi xam le ñu dess batay ci walum buzz cette fois-ci pour parler de comme ñu leen euh, surnommé Jay-Z ak Beyoncé di Adama Bey ak ki nga xam ne mooy Zeyna Ndour ndax fi mu toll nii ñoom it euh, ñoo ngi euh, def buzz bu baax a baax xam ngeen ni Viviane démb ak tey la bëgg a fête li nga xam ne mooy anniversaire u Jolof Band démb la ko commencé foofee ca Grand Théâtre fan yii yëpp ñu ngi woon ci réglage yi démb nag Zeyna ak Adama Bey ñu ngi woon foofee ca ca Grand Théâtre ñëw. apporter li nga xam ne mooy seen soutien à Viviane Ndour euh, benn geste nag boo xam ne mu ngi def buzz mooy euh, proximité bi nga xam ne Adama bi am na ko ak euh, Zeyna Ndour de toute façon xam naa internet yee ko bëgg a def buzz rek waaye amul li nga xam moy mooy ndax ils sont euh, mari et femme depuis des mois alors normal euh, ñu am yenn complicité ak yenn euh, jegeyanto bi nga xam di dinañ ko jegeyanto ci buñu génné ñu daldi jéxalé ak walum venus Ndour ndax xam ngeen ni venus momit it na ci ñi occupé fi mu tollu ni bës bi ndax nga xam moy venus ma faté ni siri Diop way na fi way bu neex ginnaaw ba mu marié wi ak ki nga xam moy mooy Thierno Diop ci nonu nak le venus daal di jëndee album Sidi Diop bu bees bi jëndé ko à 15 millions de francs CFA surtout remercier ko ci wayu neex bi nga xamné ne way na ko ko waaye wayaale ci nga xamné moy mooy euh, euh, di Thierno Diop ku ramale nouvelle nag di Babacar Bongo djégé la famille Ndour surtout les jeunes filles à euh, Vénus ak ki nga xamné moy mooy Ndour mi nga